àggale mën nañ ne ñun dañoo judd duñu néew néew tey euh, ñu ngi dugg si suñu cinquante ans waaye chaque années nii la euh, commencé woon nañu nag di am ay rêve mu ngi woon commencé changé yaa ngi dégg ay à part 2012 euh, bi ba ñu defee plan Orsec bi ba pare ba def canalisation yi commencé woon na delluwaat ginnaaw waaye nag la mu dellu ginnaaw dafa reprendre ñëw gën a indi catastrophe sax yu gën a garaaw yu fi amoon te li ko indi du dara mooy pont émergence bi yaa ngi dégg pont émergence bi bañ koy tabax dañuy waroon sóoraale ay canalisation yoo xam ne ni ndox mi bu ñëwee da koy kar jàllale ko mu dem technopole bi waaye nag karatu ko léegi ndox yooyu mooy dellu ci waat fii tey jii su fekkee ni ndox mi canal bi rek yàlla moo dëgg la bëgg quoi canal bi mu ngi ñuy soutenir mu ngi ñuy dimbali waaye balaa muy ñuy soutenir catastrophe yëpp si la koy def. boo mhm. xoolee kër jour mu ngi daanu kër daara ji nii fi mu toll gis nga xale taalibe ñu nee ci kaw yaa ngi dégg beneen bi suñu kër séer yi la miir bi daal daaneel kër gi ñëpp kenn desu fa yaa ngi dégg te ay yeneen i kër la ko def biir Grand Yoff leen nag canal pompe bi day yéex pour évacuer ndox yi te léegi nag li ko li indi léegi mooy kan euh, pont émergence bi mhm. wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg. tey ji fi ñu doon état moo ñu war a jàppale ñun waa Grand Yoff yaa ngi dégg parce que dama jàpp ni Covid 19 bi buur ñun bañ juddoo ba tey ñu doo gis événement bu lu mel ne Covid 19. waa dama gis ne eh, nañ ko géeree attaque ñu ko jàppalee. nañ ko indilee eh, ay ndimbal ñun loolu la ñu war a dimbalee loo xam ne ni chaque année ñun daf ñuy arrivé ñun waa Grand Yoff yeneen dëkk yu mel ne Grand Yoff mhm. yaa ngi dégg waroon nañ mën li ñuy yeewoo chaque fois ministre bi day yeew naan kaa yi kaa yi laa am. Mm. waroon nañ mën a tamit soo événement amee yu mel nii mm-hmm. nawet ñu jékki-jékki ñu nañu fexe côté yi nga xam ne nii lay mel nañ lañ leen di taxawoo ñu xeex affaire bi mu jeex une bonne fois waaye daal euh, mm. franchement mm. bon émergence bi moom mooy verse ci buntu pharmacie bi boo fa demee moo gën a catastrophe fii mm-hmm. waaw kon daal ñu ngi ñaan daal nañ ñu jàppale ci ndox mi mu jeex daal di leen sant yéen tamit Euh, yéen waa Dakar Actu parce que. Euh, lii dafa yombul. ngeen fekk ñi suñu te lii lu ne mu xej na si. yow rek dèjà fi mu ndox mi fi mu lay egg. yaa ngi dégg boo doon woon doomu dëkk bi keneen ñemewu ko. yaa ngi dégg waaw parce que ce risque la ngay dox si biir ay ndox yoo xam ne foo si yeeg yëpp ñu ngi ko ubbi. sa bëgg sa liggéey la di la sant di la gërëm. yàlla yàlla la waaw yéeme na trop sax. métti na trop mais xam nga ñun chaque at.

li métti na métti na trop. mais dafa mel ni ndox mi dem na fi ay dégâts de parce que gis naa ne lu bëri yàq la nit ñi. yàq na fii kër yi nekk yëpp ndox yi dugg na seen biir néeg yi yàq na yëpp. yàq na yëpp chaque at nag dañuy yàqule. chaque at dañuy yàqule dafa métti.

fii mënul jóge mënul mënul bañ a yegg zone de captage sa jaarul fii. Mhm. loolu dafa métti. yéen jeunes yi bu fekkee ni que wut nañ ci ay solution la mooy doon seen taxawaay. non solution xam nga ñun lii nekkul suñu domaine. Mhm. ku nekk ak domaine mhm. mais ñoom ñu fi teg pour ñu jiital pour ñu jiital suñu dëkk. wax nañu am yoon bi ñu mën a jaar ba liy juge fi mais lii du yoon. xam nga loolu quoi ok merci. solution ba léegi boobu amagul. li may ba ñuy xale ba léegi si si ngàcc lañu dëkk. ba ñuy xale boo léegi dañuy ngàcc rek chaque année ñu ne ay waaw affaire nañ trouver solution yi ba léegi zéro ba léegi dara mais ñu seen kër yi fees tey fan la ah, ñu fanaan ñu nii si mbedd bi fi lañ koy ba fajar bu ñu amee meew sax jël wala war wala ataaya mooy loolu fi lañ koy ba fajar ñu ngi nii mais seen xalaat solution bi jàpp ngeen ni lan la war a doon ah mais ñu xool ñu xool solution ci kaw la rek kaw da ngay xool ndox ndox bu jógee ndox foir ay si demi loolu lépp lay wàcc Mhm. canal te canal lii dafa ndaw daa ndaw. loolu mhm. rek mooy loolu. <laughs> te pourtant président de la république dafa ni dugal na dugal na 736 milliards ci li nga xam ne moom mooy wàllu inondation bi. ah loolu moom loolu mosuma ko. mën naa stop ci loolu ah. Mhm. yeggul fii rek. <laughs> yegg si waaw yegg si kay. inondation bi ñun ñu ngi koy dund sax at xaalis boobu noonu nga tudd noonu. Mhm. yegg siwul fii fii mosu ñu fee de ñu indil ñu benn benn matelas wala benn lan. te xoolal sax at ñu sànni ay matelas. Mhm. mosu ñu fee inondé xam nga xam nga fi indi.

mais nañu respecté ñun ay doomu garaaw la ndax il faut mu jox ñu cër il faut mu respecté ñu loolu mooy problème bi mais lii du yoon chaque at lii la ñuy dund mu mosul changé dafa métti lii dafa métti quoi dama bëgg nag mu dégg ko mu xam li wax mu xam ko bu baax mu ñëw mu faj ko